asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di bëgg di leen ziar fu ngeen mën a ne si àddina bi rek tey ni ngeen ko xamee nag ñu ngi mbuur géej dëkk le roi des arènes Bombardier ñaari yoon dëkku raay ba dëkku Luc Nicolaï ah macha allah dëkku mbër dëkku assurance dëkku pakala du mën a ñàkk ak Babacar maa ngi lay bëgg di la ziar. Babacar maa ngi lay delloo ziar bu baax. di la jox di la jox si yéeguwaay. ba am nga jàmm. am naa jàmm bu baax. waaw mbuur moom neex na macha allah. ak sa jasneer macha waaw yéen laay jàppale rek xam nga bés yi moom. Ah, bii de moom yéen a yéen a tax ma laa daw me. bii de moom boo boo ko wàññoon jox ma ko tamit damay jël. non dama la koy jox nga yóbbaale ko. wàññi ko. moo demee wàññi ko. amul benn problème léegi balaa may sori dama lay nuyu wax ne tey li ñu fi indi lenn la maanaam social yoo xam ne tàmm nga ko def at mu jot da nga daan sa organiser ay di dimbali ay handicapés yu ne fii ci département de ko def jënd ceeb suukar ak yu mel ni kii noonu. gis naa sax ku mel ni pël bu rafet moom daa mel ni jàppale na la si mbir yi ndax tamit. ah loolu di lu rafet a rafet pël ñuy rafet loolu acte boobu acte bu nice la. nga di ko def mais balaa may sori ak yow rek dama lay wax defe naa fan yi am na tiisu fi am ci làmb ji Père Balla Gaye beneen bi ci des mooy Pape Bouba Diop l'international yooyu balaa ñuy sori ci mbir yi loo ma ciy wax waaw fi may njëkkee rek mooy nuyu leen nuyu presse yëpp wax dëgg yàlla parce que ñun yéen benn la c'est la benn bi mooy comme li nga wax rek tiis moom ngay njëkkee muy Père Balla Gaye man bi ma yëgee nouvelle bi rek xaaruma dara dama dem automatiquement dem jaale parce que su sunu per la ñun ñëpp di ko jaale famille famille famille làmb yëpp di ko jaale waa Géejawaay di ko jaale mbokkam di ko jaal doomam Youssou Ndour buñ ci jógee aussi li nga wax léegi international Pape Bouba Diop moom it béggal sénégalais yi 2002 ñëpp kontaan euh, yàlla teel ko fay jëlee nag mu nekk xale yàlla jël ko mais yàlla moom mooy dogal nu mu ko neexee di jaale famille yëpp di jaale waa di jaale monde sportif yëpp football bi di leen jaale Pape Bouba Diop waaw buñ jógee si aussi ñu ñëw si. affaire sociale comme ni nga ko waxee rek euh, affaire sociale moom yàgg naa ci parce que euh, ça fait quatorze ans am na benn centre boo xamante ni man maa doon tëgg làmb comme ni nga ko waxee defe naa ñu bëri xam nañ ko donc doon tëgg làmb di leen jox euh, recettes yeeg yooyu donc bii nag centre bu bees la boo xam ni vraiment c'est des handicapés yoo xam te ne dañu yor ay béquets ñu yor ay fauteuils voilà donc actuellement li ñu gën a soxla ak fi dëkk bi toll waaw mooy ndimbal waaw donc yàlla lim ñu wërsëgale ku si nekk ak suñuy xarit ak suñuy am di jàmm ku nekk dugal sa doole moom lañ bëgg a dajal tey pour yóbbu ko centre pour ñu mën koo dimbali ko. depuis euh, ban année nga ko commencé def. waaw bi ma la njëkk wax ne la ren mooy sa fait quatorze ans. quatorze ans la waaw mais fii ñu jëm nag tey bi mooy premier acte ñu njëkk a def. parce que centre bu bees la. Mhm. donc man maay parrain bi ñu parrainé ma ko. Mhm. donc tey damay geste geste laa def rek pour dem seeti leen. Mhm. pour yóbbu leen ay ndimbal waaw mais nag du yem foofu. du yem hmm. foofu tey su ma ñëwee ci côté financièrement xaalis bi maanaam tey boo doon compter équivalent wu montant bi ñaata la war a toll. non mën na koo mën na koo mën na koo estimer parce que du man kese waa dafa bëri sama xarit yoo xam ne ku nekk dafa ñëw ak dooleem. Hmm. waaw ku mel ni Moussa Los dafa ñëw indi waaw hmm. Los production sama xarit la sama jumeau la waaw dafa ñëw tey dugal si loxoom bu baax Mansour Diop mii tey borom boulanger Lamp Fall daa ñëw dugal si loxoom donc ñoom Obama Mm-hmm. ñoom ñëpp comme ni nga waxee léegi pël mii tamit nee nga ñëw na bay ndey gis naa ko léegi suukaram ak saaboom waaw yooyu nag tey moom la ñu dajalee parce que du man kese uh-huh. ñoom ñëpp a jël seen doole uh-huh. barkeelu ci uh-huh. ñu war leen ko yóbbul waaw moo tax mënoo mënoo mënoo calculer ne somme bi lii la uh, mu mel ni kon Bombardier ci li ma am ci ay écho ci dëkk bi nit ku sos yàlla maanaam li ko yàlla dénk mu ngi koy bokk ak ñi nga xam ne yaakaar nañ ko et puis ñi mu tane loolu tamit xol bu yaatu boobu fan la maanaam Bombardier fu mu jëlee boobu genre jikko waaw peut-être yàlla yàlla la rek mais man boo seetee sax euh, li ëpp ñu may ñu may fréquenté yooyu daf may neex comme ñu ñuy wax ay handicapé di di leen fréquenté di bëreeg ñoom di kafa ñoom daf ma neex mais idée bi moom idée bi nga xamante ni mooy centre handicapé bi nga xam xamante damay doon tëggal làmb idée bi France la jógee ci man parce que dafa am benn gala moo ma sa seetaan def naa Zidane moo ko organisé woon voilà jël ay footballeurs yu mag invité leen ñu ñëw ñu def benn gala recette bi ci am ñu delloo ko ci benn centre handicapé bu nekk foofu voilà donc Sénégal nag ñu ñooy seen ay Zidane ñu ñooy seen ay Ronaldo voilà mani man si domaine bi ma nekk muy làmb du ma footballeur làmb la làmb laay def ma si làmb laay euh, def tey li ma war a def mooy tëgg làmb may leen ko donc foofu la idée bi ñëwee premier làmb réussir vraiment ba fi la amee départ base bi ñu am tey ñoom seen premier lamb lañ ko jëlee. mu mel ni kon tamit dinañ ci yokk leen que ni mbër yi daa mel ni ah social maanaam côté social kenn dàqu leen ko parce que bu ñu gisee nga def lii te ñàkkul seen i moromi yu koy def mel ni kon yéen tamit ak lu mën a xew yéen a ngi delloo li leen askan wi di jox ci ñoom. sama waa ji mbër ay nit ñu baax lañ mbër yi boo leen jegewul rek moo leen xam xam ñu bëri dañuy jugé mbër si biir làmb rek. Mhm. voilà communication ak communication signature ak yooyu. mais mbëri tey koo si côtoyé ba jege ko xol bu rafet la yor nit ñu baax la ñu donc man ñi ma si jot a fréquenté ñi bokk rek presque ñoo bokk ay jikko ñun ñëpp te dañuy dañuy yëngu si social waaw. mu mel ni mbër yooyu nga xam ne ñoom nga jot a fréquenté euh, faaw ñu cof la ci du mën a ñàkk parce que ku ne xam na ne revanche moom signé nga ko yow Balla Gaye numéro 2. Mhm. yaa Balla Gaye numéro 2 balaa muy ñëw ci revanche bi dëgg-dëgg yëg yéen ñaar dafa mel seen diggante amul benn saaru estime am ak soppante tuuti. waaw ah, bari du ñooy ennemi xam nga ñi nga gën a xalaat tey ñooy adversaire boo leen fekkoon ñu ñu ñu benn jotaay hmm. da nga naan ñee xarit lañ du ñu bëri sax waaw donc sopp naa ko parce que jàmbaar la gëm na li muy def moom it sopp na ma parce que jàmbaar la mais en dehors de loolu bokkuñu fu ñuy fréquenté bokkuñu jëmukaay donc combat bi taxaw na donc dañ koy bëre ci fulla ak fayda nag. ci fulla ak mu mel ni fulla ak fayda jooju tax Gaston Mbengue jox la avance jox ko avance m mel ni ci li ñu waxoon ca combat bu njëkk wala ñu seetlu woon ci ay nit dañ ne woon Balla bi dafa wéru kon nangam nangam mel ni yow dafa mel ni tontuwaat nga sax su ma a ah ne kon yow bii yoon ki wér ki nga soxla mu ñëw pelek xaw ngeen jàmmarloo. waaw man bi ma déggee si ay nit ay wax yi nit bon dafa feebaroon dafa feebaroon loolu tontu ma ci mais bi ma déggee nag si gémmiñam moom mooy dafa feebaroon si la soog ton tontu te ni dafa feebaroon na dem faju ba wér. te ñu ngi koy ñaanam wér parce que tey nit ki booy bëreeg moom da nga koy ñaanal wér d'abord pour mu mën ñëw comme wér na. ñu ngi koy ñaanal mu continuer ba jour si ba nga xamante ne boo ko daanaatee du ne bi yoon damaa feebar. wér ak Balla dina la arrangé kon yow ca combat ba. mais da koy ñaanal wér pour mu mën a ñëw bëri si parce que tey bu feebaree du bëri si. Hmm. waaw day yàq day yàq événement kon ñu ngi koy ñaanal mu wér ba mën a def combat bu maanaam bu wéree ba ñëw yàlla na wér ñëpp wér ñun ñëpp ñu wér fekk ko te tal ko euh, sa digganteeg Balla am na ci ñoo xam dañ ciy xalaat jaxasoo bëri de nga am ciy jafe-jafe. mais si bëri laa ko daane woon door noo ko daane woon ci bëri dama ko plaqué dóor ma ko mu daanu de. loolu di plaqué bi fan la plaqué bi jóge mais action ko indi. ban action da ngeen a xeex jàppante wala da nga koo dëbb sol wala lu xew ba nga taf ko palaake ko. action bi ñëpp gis nañ ko dama ko. dama ko laa bëgg nga répéter damaa dox si kawam. waaw dóor ko are mhm. mu daw jébalu si ma taf ko palaake ko mu jeex. Ah, moo la jébal boppam. waa xam nga am na ku yoo boo ko jëlee moom daanaka sa bëri day yàqu. bi yoon xalaat nga njébal. ah lu ne mën na ci am ah làmb la rek. Ah, comme bee da nga mu jébulu bi yoon est ce que dina nangu nga def ko loolu. moom daal na préparer say avantage am man may préparer samay avantage li may waaj du ma ko wax moom li muy waaj du ko wax jour yi kenn ku nekk li nga préparé nga ñëw indi ko mhm. waaw. am na ñoo xam am na mbër yoo xam dañ doon dañu gis ci ay combat am ay ay lay joxe maanaam deux minutes boo ñëwut moom maa ngi sa ko la fekk jëlee fa. non man suñu premier combat bi defe naa face à face yi ku nekk dégg na man du ma mbër muy jox ay minutes du ma mbër mu ñuy ñëw manœuvrer def la la neex du ma mbër mu ñuy appal hmm. dëgg mbër mu naan may bul daw boo dawul combat bi gaaw dama naan la sakkanalal sa wax si loolu. jarul loolu moom sakkanal say batri parce que du ma dawal benn doomu aadama. xalaatoo arrière. déedéet bokkul samay mbir da see bokkul. ci wàllu at nii parce que yaa ko mag ci at. jëkk ko si làmb loolu doo ci am problème ci côté doole bu ngeen demee ci entraînement ba yéen ñaar ñëpp ngeen ñëw taxaw. dama ni mbër yi nekk Sénégal d'accord naa ku si nekk ñu bokk entraînement. yaa ñoom man su ma sentiroon tuuti ne la ma doon man rek wàññeeku na waxuma la mënatuma ko de la ma doon man wàññeeku na rek mooy pare naa ci làmb dootuma jël benn sport de combat. kon daal fi mu nekk nii amut ci ñoom ñëpp ku ci gën a pare. d'accord naa ñoom ku si nekk ñu bokk entraînement nag ak foo ko bëggee. ba xam koy bàyyi. ah kuy bàyyi. kon day loolu leer na waaye mag ja liiru jaan moom mu ngi ca côté ba moom itam moom moom moom defe naa dégg nga kàddu yi la jot a dóor sax. non liiru moom wax dëgg yàlla euh, du ma nekk nag di tontonte ak moom xamul tax si ñëw si ñëw ma ak moom contrat te it euh, li muy def noonu c'est normal. waaw c'est très normal parce que tey bu fekkee xaritu Balla gay la bu nekk doomu ndeyam wax dëgg ñoom ñaar gis naa ni ñu mel hmm. tey booy bëri Balla Gaye am na droit wax lu ko neex nag. waaw ah, c'est très normal mais li ma si mën a rek mooy lenn mooy liiru moom en de ay affaire combat yi nit ku baax la. ah borom baax la. wallaay nit ku baax la. Ah. wallaay est-ce que nekkoo di ko dóori calmant. non non euh, liiru du ñu bëre. àdduna mënul yàgg bu ñu bëree. Ah, du dëgg. waaw bu ñu dajee yenn saa yi jotaay la ay ay ay ay ay mille la ñuy daje. Mhm. mais dama la day dindi stress laa la wax. livre dindi stress man interview damay réew yi bëgg a kon de xanaa mbër ga nekkatu fa comme stress rek lay dindi léegi. déedéet maanaam maanaam tey li mu man man mënu ma ko. li man noonu di wax ñëpp di ree man mënu ma ko man interview euh, Lirou Diane. su ma koy déglu wala ma koy seetaan damay réew yi bëgg a dee day dindi sama stress yëpp. waaw lu ne day leer ak lu koy def. <laughs> moom daal façon moom da nga ko man gis nga fi benn interview am temps yi bu jur coow ci dëkk bi de moog benn xale bu jigéen. foofu tamit bëgg nañ nga sànni fi message parce que coow li da caa bëri ci comportement yi ñi yore micro yi war a amee te defe naa porteur de voix nga loolu tamit defe naa am na loo ci war a wax. waaw surtout nag micro yi. xam nga micro dafa xaw a garaaw. waaw te métier bii ngeen yor. Mhm. métier bu noble la. Mhm. loolu il faut ñu bàyyi si xel. du métier bu ñàkk fayda parce que xam nga est-ce que xam nga journaliste. presque ñooy deuxième puissance si réew. Mhm. ñoo mën a fal nit. ñoo mën a wàcc nit. ñoo mën a defar nit ñoo mën a léegi donc il faut kon ñu xam métier bi ñu yor lan la métier noobu la la la wax boo seetee tey euh, même homme d'état yi ngay gis ku si nekk booy wax si presse danga koy seet bu baax parce que dañuy garder mhm. loo waxoon daaw ak loo wax ren mhm. voilà te léegi vaar xam nga waxoon naa fi ay temps ma boobu télé yi bëri wuñu internet bëriwul ma ku fi daanu di nga daan une semaine mhm. léegi ku daanu mille fois ngay daanu par jour da ngay dem statut da ngay dem TikTok Instagram fu ne ngay daanu donc nag kuy wax si micro uh-huh. wala nga ciy jëf uh-huh. na nga siy jëf lu leer loo xam ni ku ko seetaan dina ne gongo uh-huh. mais man de li ñu def keroog man bi ma ko njëgee seen sax dama ni benn mise en scène la rek boo xam ni. loolu laa ko tegoon vraiment. mais bi ma ko xoolaatee nag yeneen interview si laa xam ni réel la. mais accident de travail la rek. day am si day am si métier. donc femme boobu aussi. waaw ñu ngi koy wax mu gën a defaraat toogaayam. Mhm. liiru aussi tamit. Mhm. yaa war a wax rek tamit bu mu tax rek nga saaraan di wax lu ne waaw nee na mooy mooy monument wu Guédiawaye waaw na gën a defaraat toogaayam moom it. xam daa war a war a dëgër waaw. saison bi ku ne xam na ne ubbeegul te mbër nga war ngaa bëre lekk nga avance saison boobu tëj nii taxaw nii ñaa ngi coow nag am na ñoo ne fi mu ne ñu ngi wax que ni saison bi na ubbi na ubbi loolu loo ciy wax. waaye il est temps nag pour mu ubbi parce que dafa am promoteur am dañuy investir seen xaalis euh, te làmb yeneen secteur yëpp ñu ngi bougé ah. waaw am waaw ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi bougé ba mu si làmb. donc man d'accord naa làmb ubbi actuellement. mais ñu respecté aussi par exemple ah, tey kuy ñëw làmb. Mhm. ki ne supporter bi ne la dangay ngay takk masque obligatoire. comme ni ñu def si grande surface yi. booy def course da ngay dem takk masque. Mhm. ñu def ko gars yi ñëw commencé activité yi. une fois ñu commencé benn ñaar rek mais nit ñi dañu commencé di di fàtte feebar bi waaw. na solo xam nga euh, Garga 2 xam nga ko. Garga xam naa ko xam nga Mama Lamine. Mama Lamine xam naa ko. ñoom ñaar seen combat taxaw na de. komba espoir la bu neex. <laughs> waaw. ma Vox wala Vox Arena moo tëgg boobu komba waaw Vox Arena ñoo ko taxawal. Garga 2 moo nekk ko moo nekk dóor dóoraat. waaw espoir la. Mhm. bu mën a bëree. maamala bi mu nekk Lamsar. waaw ca Max. sa Max Mbergane. waaw ah combat la combat bu garaaw la de. bu neex sax. bu neex waaw. xam nga leen. ñoom ñaar xam naa leen. Uh-huh. ku si nekk damaa am yow ay relation uh-huh. relation en tant que rakk quoi. donc Tyson 2 dama ko fekkee mbapat. Euh, Franc it fekke naa ko mbapat. Uh-huh. parce que seetaan naa ko. mais ñaari champion loo xamante ni. ku si may sa morom dara ñàkk sa combat. ba tey Vox Arena moo tëgg loolu Vox Arena di label bo xam ne télévision la ba pare di produire ay événement rawatina lamb ñoom tam loo leen di wax waa Vox Arena ànd ak Equivox bi Babacar nekk tey. waaw Babacar bi mu fa nekkee vraiment dañ koy rafetlu ndax yow des ndax monument nga si si gars yi. Equivox aussi seen patron sama xarit la dañuy déggante bu baax. caam ba fa nekkit sama gaayan la kon maa ngi ci biir. yaa ngi ci biir Equivox. maa ngi ci biir Equivox. kontaan ci yow. jaajëf Babacar.